urgence état des waaw mu nekk loi boo xamante ni comme ni nga ko waxee loi bu impopulaire la euh, loi bu partial ndax lu tax mu partial ki ko wote rek ko moom boppam la ko defal xam nga président de la république il est là que pour son propre intérêt man nit koo xam ni gëmul intérêt Sénégal ci mag Sall laa ko gisee ah bon non gëmul intérêt Sénégal noonu nañu waxante rek dëgg loi boo xamante ne man li ma yaakaar sama xalaat mooy li nga xamante ne moo xew fii bu warul bokk ak li xew France ñun France suñu ñu moo ñu coloniser mais France n'est pas notre patron ñun su fekkee suñu bopp day metti France du ñu seet duñu ñu duñu nuyu mais Macky Sall saa yu bopp France méttee mu téléphoné ko ni ko foo toll ndax jël nga aspirine mu ne ko jël naa aspirine mu ne ko waa xaaral ma jox ko waa Sénégal ñun nous ne sommes pas les de France ñun nous sommes des Sénégalais. loo bëgg wax ne que loi bi ci France lañ ko. ci lañu tënku. Hmm. ñun bu France amee ñaari cas ñu am ñaar bu France wàññee benn ñu wàññi benn bu France tëjee suba ngoon Macky tëj ñu cette loi. n'avait pas sa raison d'être parce que tout simplement état d'urgence ak état de siège lu valable la article 69 bi ñuy bi ñuy bi nga xamante ni moom la ñuy modifié tey 69 29 du 29 avril 1969 xam naa ñu bëri juddooguñu ñu koy modifié mais ah, gis nga loi bi lépp la comporté am na lépp ci biir li nga xamante ni président mënoon na ko utiliser sans pour autant muy def appel recours à la modification de la loi moom kay jël na boppam prérogative yi parce que loi bi permettre na ko mu def douze jours na def douze jours am bu soxlawaatee yeneen dou jours wala prorogation ñun député yi dañ ñuy fay ci xaalisu assemblée nationale mu woowaat ñu toog assemblée nationale waxtaane ko jox ko prérogative mu yokkaat mais li tax man la loi bi dafa impopulaire parce que dafa xañ droit li nga xamante ne mooy le parlementaire te man parlementaire que je suis man je suis contre cette loi ak toutes mes forces mhm. dama jëlale li nga xamante ne moo ci nekk laxasu ci lépp président na président président préparé waale ko ci ci wa ci loi bi mais man dama ci dama ci dama ci dama ci bëggoon sax ne lii jaral na ma dem yéeg ci kaw grille ci assemblée nationale toog bañ àjjee ma fa parce que tout simplement yi dafa bëgg a takk waa Sénégal jaay leen waa France. mais su ñu gisee ci exposé des motifs loi bi dafa wax ne que peut-être euh, loi bi dina leen permettre ñu ñu dem un peu plus vite euh, par rapport ak euh, catastrophe sanitaire wala naturelle yi mën a am loolu tamit naka lañ ko mën a jàngatee parce que su fekkee ne que logique boobu lañ demee le président de la République peut-être a bien fait de de de de de proposer cette loi. man dama lay wax ni la baaxul pour mu proposer ko. Mm-hmm. parce que gis nga catastrophe naturelle ñu ngi tey nekkuñu ci catastrophe naturelle. Hmm. ñun ñu ngi nekk ci bu dee dañuy wax dañoo nekk ci urgence sanitaire mën nañoo jël urgence sanitaire di ko jaawale ak catastrophe naturelle. Hmm. xam nga lan lañ ma bëgg a tegal man ñoom comme ali bi li ma gis. Hmm. mooy euh, puits de de pétrole bi doon takk bërki démb. Gandiaga. ñu toog ñaari fan amuñu lu ko fay. loolu urgence la wala loolu catastrophe naturel la. non du loolu li làqatu ci ginnaaw loi bi nekkul li nga xamante ni mooy urgence sanitaire. kon lan moo ci làqatu man je pense que urgence sanitaire bi su fekkonte ni président bëggoon na ko régler du woon lii parce que bërki démboo Ndiaye fi ñuy commencé dañu dugg ci mbas mi mu nekk lu nouveau au Sénégal. xamuñu ko ñun miinuñu ko tàmmuñu ko ñun ñëpp mbas yëpp jaar nañ fi mu woote pale woote waxtaan woo président parti yëpp. ñëpp dem wuy ji ko. ñu bëgg jàmm Sénégal bëgg jàmm réew mi mu ne nañu ko may ay prérogative yoo xamante ni moo koy permettre saa yu affaire bëggee jaxasoo mu def état d'urgence nit ñi dem fàttu yi seen biir kër ñu wàccee mbas mi ñu may ko trois mois mu utiliser ko mu ñam sénégalais yi ne neex na parce que duma nañ fi ci sénégalais yi ci diggante bi. <laughs> door nañ leen fi tëcc nañ leen fekk nañ leen ba seen biir kër même bu dee ci kaw loolu policiers yi doon def loolu fayuñu leen. utiliser nañ leen à des fins à leur fin propre mhm. te fay ñu leen mais fekk nañ leen seen ba seen biir kër loqati leen di leen di dóor mu ne ah sénégalais kon ragal la léegi commencé nañoo tëdd vingt heures kon li may wàcc ci kanam muy ñëw dama koy préparer en deux mille vingt quatre mais mais mais justement honorable foofu tamit il faut nga nga clair ci parce que nee nga loi bi gëmoo li ñu teg nii pour yow yaa anguille sous roche am na lu ñuy nëbb wala am na lu bëgg def mais lan la exactement. mais exactement Macky veut se positionner en en deux mille vingt quatre comme candidat à la présidence de la République yaa ngi dégg ñëpp di ko wax. moi je pense que des catastrophes naturelles yooyu bu ñu koy def defe naa bon mun naa ni Euh, bi bi temps wu du Dia. Mhm. la fi état de siège et état d'urgence am. Mhm. temps wu Senghor la fi état d'urgence et état de siège am ab lay Wade li fi xew lépp. ngeen xam ko. 24 mhm. juin am fi leneen am fi wax leen ma yéen ci seen historique li ngeen xam kan moo fi dégg état d'urgence ak état de siège léegi wax leen ma ko mais yow le 24 juin jarul état d'urgence ak état de siège. loolu moo rawoon catastrophe naturelle le lendemain pour s'accaparer du pouvoir sama waa ji la Gorsi waroon naa mën a jël état d'urgence ak état de siège ndax Macky est impopulaire bi gars yi di xeex fii Macky mu nga dawoon làqatu ji fële ca ginnaaw naan day wut militant musul xeex Macky dafay napp sénégalais yi parce que xam na ni amul fit ñemewul mu ne xaaral ma napp sénégalais yi seet ba xam ay tapet lañ suñu tapetee nag 2024 état d'urgence ak état de siège laay def xañ ñépp seen i xool xoolal xam nga état d'urgence ci lan lay dem état d'urgence mooy ma yërndu la. Mhm. est-ce que mës ngaa voyager nee na Aïcha. Mhm. jaar ci rayon X yi ñu lay seet. Mhm. boo voyager jaar ci rayon X yi ñun européens yi dañu koy bañ dañ koy xeex am nañ ci droit. ñun ñi nga xam ne dañuy voyager mais mu ngi mel ni télévision bi ñu taal ko dañuy gis sa squelette sa yaram. waaw yi dina yër dina la yërndu yow. dina ma yërndu man dina yërndu greffier ba dina yërndu procureur ba. dina dana écouter sa téléphone mënoo koo bañ ci état d'urgence bi ak li ñu ko jox dina seet li ministre de l'intérieur yi def da koy yërndu chaque fois moom na xam boppam dàq na policier mais fi mu jëm xamu ko parce que dañ koy indi pour mu dàq Sonko tere Karim Wade mu ñëw mais moom Macky ci état bi li ñu ko voteel dana la yërndu yow yërndu keneen état d'urgence ci yooyu la maanaam ay catastrophe la yoo xamante ne bu amee président day am droit de regard sur tout dana dem ba limiter ñaata oxygène la ñu war a ñun par jour. <laughs> d'accord donc man jàpp naa ni cette loi. Mhm. n'avait pas sa raison d'être. la modification de cette loi n'avait pas sa raison d'être. Mhm. vu que. mais ana député yi. ah man dem maa nga fa woon. waaw. yeneen député nga fa woon. waaw mais nag Cheikh Oumar. foofu dama ciy ñaan rek nee na ay at benn minute. Sénégalais bi xam ni. lii nga xamante ne moo xew ci sénégalais yi la jóge parce que nit du ma la jox assemblée national jox la mboolem luy nekk ci ay maires yi jox la présidence de la république ngay bëgg sekk di maadaaro di ngóor ga ca mbeeraay di def di dindi di buur di bummi ku réer nga gindi ba noppi ma wëlbati ku nga laaj ma deuxième mandat ma jox la ko mm-hmm. sénégalais yi ñoo poñalu seen bopp bu fekkente ne ñoo ko ko jox ndax mbir mi avant élection Aly Ngouille Ndiaye moom ci boppam ministre de l'intérieur moo toog ni dinaa fexe ba kuy woteel Macky Sall ma jox la sa carte soo waree wote ji ma yee la fajar wote loola kon Aly Ngouille Ndiaye moom moo gañaloo Macky Sall suñu élection ba pare dem bañu fa ma nga ne di bay ñaam bi d'accord alors ma ma ma dem ci ci ci ci yi gis nañ ko ah la loi quand même euh, suscité na ay réactions yu bëri maa ngi ko doon wax euh, tout à l'heure peut-être très rapidement sa sa sa analyse par rapport à l'adoption de cette loi mais également taxawaayu société civile taxawaayu les droits de l'homme ñoom itamit parce que du population bi rek mais ñoom it ŋàññ nañu ŋàññ nañu lii di loi bi te gis nañ ne que en France peut-être loi bu similaire amoon na fa ba ñu présenté woon ko mais député yi dañ ko bañ tax ñu ne dañ koy delloo ñii di euh, société civile bi pour ñu étudier ko ak professeurs yi euh, pour ñu mën ko étudier pour mën a xool lan lañ ciy arrangé pour adopter ko tey tam est-ce que Sénégal warul woon taxawee noonu. Euh, avant que may def une étude comparative entre Sénégal ak France et d'ailleurs j'ai l'habitude de l'éviter même. Mhm. damay damay njëkk a wax tata Mame Diarra kontaan naa nag ni mu waxee pouvoir bi niñ ko joxee président Macky Sall te sénégalais yi ñoo ko jox. mu doon loo xamante ni mi ngi koy doxal te da koy doxal fii ba deux mille vingt quatre incha allah donc loi loi bi 11 janvier 2020 ñu proposé que assemblée nationale bu dul dara. il faut ñu expliquer sénégalais yi. boo xamante ni 1969 la moom tam Mame Diarra sax wax na ko léegi. tey jii bu ñuy def sondage ñu toog fii ci table bi autour de la table ba ñu def loi boobu presque la majorité ou deux tiers de ceux qui sont ici au niveau de la table juddooguñu. te ñu wax dañoo def loo xamante ni état la day dox. am loo xamante ni nangu woon nañ ko en 1969 wala ñu nangu ko en 1968 loo xam ne nangu nañ ko 70 ce n'est plus valable aujourd'hui en parce que ñëpp xam nañ évolution bi ñu nekk ci dans ce monde bu dul dara bu dul dara ñaata yoon nañ fi réviser suñu constitution laa lu ñu loolu xam nga lu tax quand on dit état d'urgence ak état de siège il faut ñu expliquer sénégalais lambda yi ñu xam lan la c' est des situations exceptionnelles loo xamante ne dem nañu bët tiit ba yaakaar ni l' ordre public ordre mooy loo bokk taamaam jaara bokk si ma bokk si kii bokk si mu ngi yënku état war a mën a taxaw nag def benn nit kese nekk benn homme taxaw pour lépp ñëpp war a mën a tolloo ci loolu loolu mooy indi ñu indi état d'urgence wala état état de siège sax moo gën a graaw mm-hmm. ndax boobu dañu autoriser arme bi ak yëpp génn loolu dafay fekk mu am beneen beneen euh, menace bu am si territoire bi mm-hmm. mais état Euh, état d'urgence est moins grave et même pour vous dire que àgguñu foofu yëpp ndax état d'urgence bañ koy def fii Sénégal dañuy dem ba contrôler presse lan la war a wax ak lan la warul def donc situation exceptionnelle mesure exceptionnelle mais tey jii article bi lan la wax yow déjà wax nga ko au niveau des motifs balaa ñuy jël benn loi dañuy taxaw bu fekkee dafa am loo xamante ne dafay nekk projet de loi wala proposition de loi am nañ ci droit dafa am différence différence bi mooy bu fekkee assemblée nationale ñoom ñooy proposer pour changer loi mhm. loolu yoon daka nangu constitution bi la am na loo xamante ni exécutif bi nag suñu loi moo ko ko may pour exécutif bi c'est-à-dire je veux parler du président de la république mhm. am na possibilité ñëw tam jël benn pro benn loi ni dama bëgg ñu changer lii wala ñu def li ñu yóbbu ko au niveau de l'assemblée nationale ñu war ko mën a valider donc lii mooy projet de de loi tey ji may na ko loolu def na ko nan la ko defee mhm. article bu njëkk bi en 1969 dafa boole état d'urgence état de siège ak situation de catastrophe naturelle et sanitaire mu ñëw mu ni nañ ko changer à son article 24 mu ni nañu séparer situation de catastrophe naturelle à part sans pour bu fekkee loolu am na tey jii mu taxaw sans que ça soit proclamé mm-hmm. l'état d'urgence et l'état de siège cest dire bu amee calamité